الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi sunu xutba tey mooy ah mumkin mooy waawaaw mën naa nekk mën naa nekk mumkin an tafala almaasi saqila wa tuznib zunub kathira wa tusbihu bada dalika min awliyai salihin min awliyai illahi salihin ah mumkin mumkin tabqa baidan جدا شارد وبعد ذلك تصبح min ibadillahi almuqarrabin waaw waaw mën naa ne kay lan moo mën a ne mooy mën ngaa nekk borom bakkaar ku fees dell ak ay bakkaar koo xam ne desalul lenn ci buntu bakkaar yi lu dul def na ko bakkaar yi yenu ko ba mu diis ci kawam waaye ginnaaw loolu moom waa jooju borom bakkaar yu bari yooyu nga xam ne dafa yenu ba diis mu bujj a nekk ci jaami yàlla yu baax yi mën naa ne kay mumkin mën ngaa nekk ku sori diine ku sori yàlla sori yonent sori alquran waaye ginnaaw loolu nga bokk ci jaami yàlla yi nga xam ne yàlla daf leen jegel boppam ah mumkin waaw waaw mën naa nekk kay jële nañ ci xadisu abi tawil shatbin almamdud annahu ata annabi صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها فهل لذلك من توبة كان صحابي كتب أبي طويل dafa ñëw ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko benn waaye ngi nii boo xam ne bakkaar yi lépp la def bàyyiwul benn bunt bakkaar lu dul ubbi na ko du lu ndaw du lu mag bakkaar yi mag yi ndaw def na ko ba jeex yu mag yëpp def na ko waa kooku yow yonent fa hal li dalika min tawba ndax kooku mun naa tuub fa qaala sallallahu alayhi wa sallam fa hal aslamta yonente bi ne ko ndax jëbbulu nga ndax dugg nga ci lislaam qaala amma ana fa ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah mu ne ginnaaw tey fii ma taxaw maa ngi seede ne yàlla kenn la seede goo xam ne jaamu gi daf koy nekk njëriñ ñàkkoo jaamu nekk lor may seede yow muhammad mi ma taxaw ci kanamam ndawal yàlla nga yonentab yàlla nga qaala tafal alxayrat wa tatruku sayiat fa yajcaluhunna allahu laka xayrat kulluhun sallallahu alayhi wa sallam ne ko comme dugg nga ci lislaam nag maa ngi lay dénk del def lu baax bàyyi lu bon gis nga soo taxawee ci def lu baax bàyyi lu bon yu bon yële nga defoon yàlla soppiraat la ko ay tiyaaba jàngeen alquran mu ne yukaffiru llahu sayiatihim xasanaat moo tax diine rek mooy dëgg lislaam ngay nekk ci caaxaan nekk ci ay tojaange ba nga tuub mu nekk lu dëgg ci yow nga delluwaat ci yàlla yàlla baal la li nga defa waaye bàkkaar yi sax mu daal di koy defaat tiyaaba ndeysaan yeneen bi ne ko góorgóorlu nga taxaw ci lu baax bàyyi lu bon su ko defee yàlla defal la yi nga defoon yépp mu nekk xayraat waa ji daal di jaaxle moom abi tawil mu ne yonent wa xadaraati wa faja wa fujuraati waaw sama kàccoore gi ma kàccoore woon sama wor gi ma daan wor loolu lépp qaala naam yonent bi na ko waaw waaw kàccoore gële ak saay-saay si nga nekke woon tey bi nga taxawee ci kanamu yonent yàlla bi tuub muy lu dëggu yàlla baal la lépp moom waa ji gaa qaala allahu akbar mu daal di génn fa ma zaala yukabbiru xatta tatawaara mu génn romb yonent bi naan allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ba kenn séenatu ko ma ngay kàbbar di dem ndax xelam dal na inna rabbaka waasiul magfira sa boroom ku yaatu njéggal la samma nafsahu al waasi samma nafsahu al ala moom yàlla dafa tudde boppam boroom yërmande gu yaatu gi moom yàlla dafa tudde boppam ku kawe ku màgg ki moo tax doomu aadama munul natt yërmande yàlla benn waay boo xam ne def na buntu bàkkaar yépp bàyyiwul benn ba ko dee dikkalee mu wóor ko ne day dee day faatu mu dajale doom yi mu ne leen ban bàyyi laa ci man ci yéen ñu ne ko bàyyi ju baax bàyyi ju mat bàyyi mu sunoo xiif mu sunoo mar mu sunoo rafle sunu bët mësta xonq mu ne dafa am lu ma leen di digal ma bëgg bu ma faatoo ngeen defal ma ko doomi ne ko bàyyi loolu lan la mu ne su ma faatoo na ngeen dajale ay mat ba mu jalu ngeen teg ma ci daan may lakk bu ngeen ma lakkee ba mu nekk dóom ngeen séddale ko ñaari paan benn paan bi ngeen def ko ci ngelaw li mu naaw benn paan bi ngeen dem ba ci géej gi sotti ko ci yëngal ko mu say xale yi daal di jommi daal di waaru ne ko bàyyi lu waral loolu mu ne damaa tooñ yàlla te ra ñemewuma ko bëgguma dajeek moom ñemewuma yàlla ndax lim ma santoon yow defuma ci dara su ma dajeek moom du baax te bëgguma dajeek moom kon lakk leen ma ma nekk dóom mu faatu xale yi dajale ay mat lu toll ne la koy lakk ñu lakk ko ba mu nekk dóomu taal ñu séddale ko ñaari xaaj benn xaaj bi xale yi yéeg ci montagne yi sànni ko ci ngelaw li mu naaw beneen xaaj bi ñu yóbbu ko ci géej gi daal di koy yëngal mu seey yàlla ne waa ji kun fa yakun mu taxaw kanamu yàlla innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lah kun fa yakun allahu akbar fa amruhu bayna alkaafi wan nuun yàlla ne waa ji taxawal mu taxaw yàlla mu ne ko waaw yow lu xiir ci li nga def mu ne ko yàlla dama laa ñe dama laa ragal ñemewuma la ñemewuma la ndax musoo musuma laa jaamu li nga ma santoon yëpp musuma cee def dara ragal googu laa la ragal ba tax ma ne nan ma lakk balaa may dajeek yow yàlla mu ne ko baal naa la dama nga dugg aljanna ixwatal iman yërmande yàlla kenn mënu koo natt amul fu mu yem moom yàlla tabaraka wa taala rahmatuhu wasiat kulli shay yërmande doomu aadama dafa am fu mu yem da yem ci say nit da yem say xarit yem say mbokk yem say dëkkandoo yem ci yenn jur amma yërmande yàlla moom wasiat kulli shay lépp yërmande yàlla daj na ko moom yàlla moomu laa tastati an taqula anna magfiratu llahi aza wa jal li unaasin muayyan duna gayrihim kenn ñemewul wax ne yàlla de ñoom diw rek lay yërëm déedéet fami sàngam lay yërëm waa kër yonent bi kese lay yërëm waa kër sahaaba yi waa kër sëriñ si waa kër wali yi ak muqaddam yi ñooñu lay yërëm déedéet moom yàlla yërmandeem ñépp la ko jagleel bàyyiwul kenn kenn du wax na yërmande yàlla ci ay mbir rek la ko def ci lépp la ko def benn waaye mar na naan mu wàcc ci xur wi mu gis ab teen mu dugal baag bi naan ba màndi mu ne day génn xur wi mu seen xaj bu mar bay mar ay xeer mu ne xaj bi de la ma daloon na ko dal mu dellu ca teen ba tànq ci dàllam maraakis ya mu soloon mu tànq ci may xaj bi naan mu sant yàlla yàlla jéggal ko dugal ko aljanna inna kasiran min annas kaanu abad ma yakun wa kaanu ala kathir min almuaqabat walkabair wa xutimat lahum bi xaatama yumkin lam taxtum li unaas yusaaru ilayhim bil binyaan ñu bare bari ci doomu aadama yi ñu bari tey ci ndaw yi ci góor ak jigéen dañoo sori yàlla fees dell ak bakkaar ci góor ak jigéen mag ak ndaw ñenn ñi jàpp ne sax bu ñu tuubaatee yàlla du leen baal bu ñu delsee yàlla du leen jéggal ndax seeni bakkaar waaye lenn ci ñooñu nga gis yenn saa yi ku rëcc daal di dellu si rek yàlla daal di koy may mu am mujj gu rafet mu daal di faatu daal di dugg aljanna ما يدرك أيها الحبيب بما سيختم لنا كانت ñun tey ku julli su àjjuma ci biir ak ci biti góor ak jigéen kan ci ñun moo xam mu jëm kan ci ñun moo xam fan lay mujj fan la ko dee di fekk ndax da koy fekk mu dee ngëm ak da koy fekk mu dee yëfër fa min al mumkin an tatagayyar xayaatak wallahi yow moom fees delaki bakkaar jàpp ne yàlla dootu la baal yàlla séexlu na la mën ngaa soppi sa dund fekk dee bettu la mën ngaa soppeeku ci ay minutes ci ay secondes yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala daf ci wàcce yërmandeem ba nga am dee mujj gu rafet ay nit a ngi nii yoo xam ne ay saay-saay lañu woon ay kaccoor waaye ba nu tiitee dellu ci yàlla yàlla may na leen ñu daal di faatu faatu bu rafet mën nañ koo wàññi ci ay borom xam-xam mën nañ koo wàññi ci ay niti yàlla looloo tax nga war a góorgóorlu waaye contraire bi tamit mën naa am contraire bi mën naa am mën ngaa nekk ci lu baax nekk ci lu baax ba dernière seconde nga dugg ci lu bon de faatu dem safara benn waaye dafa jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at musul mooy yàlla iblis feeñu ko xam nga iblis buy nax tey nit ñi sànq nañ ma woon ci sama portable ñu envoyé ma ci sama whatsapp benn waay boo xam ne dafa yor butelu sàngara takk croix yor kaas di naan sàngara xam ngeen lan la def plate bi mu teg butéel bi xam ngeen lan la def palaat bi mu teg butéelu sàngara si xam ngeen ko ñaari kaamilu alquran xam nga xam nga lu ci ruslu ku dégg waajooju li mu def danaan kooku de ab yéeféer la waaye ab jullit la te Sénégal la dëkk ñu ne dañuy wàññi leer leer day wàññi leer leer la hawla wala quwwata illa billah kaamilu alquran ab jullit di ci teg sàngara ah ba pare néeg bi mu nekk mu yére bi mu sol mu ngi taf fii ci fii ci càmmoñ bi mu ngi fi taf photo sëriñam photo sëriñ bi mu ngi ànd ak taalibe yi ñoom ñoom ñu ngi muuru kol yu weex mu taxaw takk croix yor butéelu sàngara soo leen ne lii lan la ñu ne dañuy wàññi leer fan lañ jëm ñun Sénégal fan lañ jëm bés bu nekk nga dégg loo xam ne sa xol bi explosé na ko pour nga dee bés bu nekk nga gis ay nit di yàq diine ji te lu ci ruslu mooy kër googu foto yooyu kooku takk koo ñooñu ñu gëm te waa ji xam nga lu ne dafa létt góor la de mais daa létt jigéen ñëpp wër ko nag mu létt xool yi mu boole ni mu bëree dafa létt day naan sàngara jël sàngara si teg ko ci kaamil gi takk croix ànd ak xale jigéen ñi xool yi mu boole ni mu bëree waaye lu ci ruslu mooy au lieu ñu wax ak waa ji déedéet ñiy critiquer waa ji la nit ñi waxal non wax na dëgg day wàññi leer parce que leer gu ëpp baaxul Aboubacar amoon na leer wala amul leer Seydina Aboubacar Siddiq radiyallahu anhu wa arda amoon na leer wala amul leer Umar ibnul Xattaab Ousmane ibnu Affan Ali ibnu Abi Talib Bilal muazzinu rasul ñooñu amoon nañ leer wala amuñu leer lu tax wàññi wuñ ko yow sax leer gi nga am ba nga ne yow da nga am leer leer ko kan moo la yow da nga am leer ban téere la ñu ubbi ba ñu ne yow da ngaa leer naññ naññ wàññi ko ban téere ban hadis moo leen ne yow da nga am leer nañ ko wàññi tey diina jëpp loolu lañ ko yàqee kilifa goofu gis muy mooy yàlla dañ naan leera ma bëri da koy wàññi su lor deen wàññeeku Muhammad wàññi leeram su lor deen wàññeeku ñii ma lim sànq ñoom imaamu Malik Shafi Ahmad Abu Hanifa al abadal al arbaa ñu wàññi seen leer waaye noonu la ñuy naxee tey doomu jullit yi di leen dugal ci ay caaxaan di leen xam nga sëriñ buy naan sàngara jël kaamil teg ko palaat teg sàngara si ci kaw kooku taalibe yi ni ñuy mel yàlla na yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yàlla nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko alhamdulillahi waxda wala nabudu gayra muxlisina lahu din walaw kariha alkafirun ibadallah dañu yëg ne contraire bi mën na am nit mën ngaa nekk ci lu baax ba dernière minute nga dugg ci bàkkaar daal dee dem safara yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na inna rajula la yacmalu amala ahli aljanna fama yabdu linnas wa huwa min ahli nnar muttafaqun alayh ñu ngi nii koo xam ne yëfu waa àjjana rek lay def ba dara terewu ko dugg àjjana dara ñëpp loolu lañ ko xamee ba ñëpp yaakaar ci moom aljanna moom mooy yàlla day dem safara abu darda kenn ci ñu doon ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam la kullu ma wajada rajulan rajulan maata ala xaalati saalax saaliha qaala ya laytani kuntu makaana abu darda ndeysaan saa yu gisee waaju baax dee mu leer ñëpp ne kii ci lu baax la dee day taxaw di jooy naan ay waay aka neexoon ma nekk waa ji waay waay waay waay maa ngi ñaan yàlla bu may dee naa dee ci comme waa ji ni mu deewee saa yu gisee ku baax ku dee rek day mébét moom Abu Darda dee ni waa ji dee benn bis soxnaam bu tudd Ummu Darda ne ko limaza tatamanna makanahu ana ahsibuka ala xay yow Abu Darda man de jaaxal nga ma yow sama borom kër lan moo tax soo gisee ku baax dee rek nga bëgg a nekk ci place am te yow man mii maay sa soxna yaakaar naa ci yow ak mbaax man gis naa ko mu ne ko yaa xamqa yow dof bi yow ku xelam dese ki yow ku matadi ki xanaa xamuloo ne anna rajula yusbihu muminan wa yumsi munafiqan yuslabu al imaanu wa huwa la yashur xanaa moo nit a ngi nii di dox gëm yàlla balaa ngoon mu nekk naa féq yàlla rocc ci ngëmam ci xolam mu daal di dee dugg safara fa ya ayuha sabab ashahwa yéen ndaw yi nga xam ne tey jàpp ngeen ne ci àdduna caaxaan rek moom war a nekk ba tax portable yi whatsapp imo youtube facebook caaxaan kese doo gis mukk ku yor portable di ci jàng diine wala mu ci xam boroomam mukk banditisme rek ak caay-caay baadir qabla an tugaadir gaaw leen balaa ñuy quitté gaaw leen balaa ñuy toxu waaw nanu gaawut balaa ñuy toxu wallahi dee moo ngi ñëw te dana nu bett walaw ista alfa aamin wa alfayni baada fala budda yowman tadxulul qabr soo dundoon junni at ñu wisaat la yeneen junni at yàgg-yàgg di nga dem bàmmeel te wallahi ku dugg bàmmeel indaale fa bakkaar di nga rëcc loo doon nekke doomu aadama qasiril amal waslih nafsak bi tawba qabla fawaati l awaan mbokk yi nañu wàññi mébét yi mébét yi nañ ko wàññi mébét yi dinaa non temps yi ay 20 ans laa am 30 ans laa am 35 ans laa am non booy laa dama koy teg ci temps bi damay bonde non ba ci kanam non amul problème non ay tuub la non ay jaar jàll la non yee gars yi non business ah rek ah ah loolu rek yee yee yee yee yee rek ba dee ñëw ne la kirtim ñu yenu la yóbbu ci jàkka ja ndeysaan ñu naan allahu akbar moom de amul doom suñu benn dëkkandoo kii mun na ko seede xale bu ndaw amul jabar amul doom amul dara ñu wutal ko kalandoo ndeysaan muy liggéey kalandoo bi paan mu ne mag gi kalandoo bi da dafa paan jàppale ma ma defar ko mu ne ko xaaral ba ñu yeggali tabax bii rek ay fan ñu lijjantil la loo ko yeggale loo defare oto bi mu tëdd di nelaw portable am sone ginnaaw ba mu jullee fajar ba pare benn waaye bu nekk ci gaal yi ne ko sunu gaal gi teer na de te jën yi bëri na ñëwal nga am ci dara mu daw dugg Cambérène ndeysaan wàcc ci oto ñëw simmeeku sol ay blouson am dugg ci géej gi di puus gaal gi gaal gi tànc ko mu dee noonu la jaaree ñu suuli ko noonu la jaaree duggaatul ci kër ga ñu woowaa kër ga diw mi ngeen jullee loon léegi diw mi ngeen fanaanaloon léegi diw mi fi tàggoo léegi di leen indi li jën pour ngeen añ su ngeen ko bëggee gis dem leen fànn mu nga salle de mort ñuy autopsie pour war ko suuli doomu aadama xamoo kañ ngay dee dee day bettee moo tax xasiril amal wàññil mébét yi dinaa dinaa dinaa dinaa fekk da ngay dee wa aslih nafsak defaraatal sa bopp nañ defaraat xol yi nañ defaraat bakkan yi nañ defaraat ruu yi nan ko delloo borom bi tabaraka wa taala nanu tuub balaa mbir mi di weesu tuub day wees sunu borom subhanahu wa taala dana nangu nit tuub fekk jant bi xëyul fenke sow dana nangu nit tuub fekk eggul ci xar-xar ci dee foog nu delloowaat nit ñi ci yàlla xamalaat nit ñi yàlla dara taxul Sénégal ñu alko lu dul nit ñi wanuñu leen yàlla ay caaxaan kese leen leen wan fecc tëgg way yuuxu rek dafa ne loolu ay tiyaaba la law kaana xayran la sabaquna ilay bu doon tëgg ak fecc di yuuxu di sikaraka di saleeru naan sàngara di ko teg alxuraan baax lu baax la kon sahaaba yi jiituñu ci kon sayyiduna muhammad jiituñu ci keroog ba alquran wàccee yàlla ne innama alxamr wal maysir wal ansaab wal azlam rijsun min amali shaytan sangara carte wala carte gi ni mu feesee carte gi ni mu feesee ci biir Sénégal carte gi dañuy carte léegi bay carte ci marché yi waaw fas yi lu nekk lépp la ñuy carte léegi tout làmb bi lu nekk kartang ci kenn du wax sàngara si moo ngi walangaan tuuru ci mbedd yi ay mbuus mbuus 100 francs wala kaas AGT kaas 50 francs ñëpp indi naan kenn du wax ñëpp a ngi na pat te dëkk bi nit ñi leer na leen ne dëkk bi bàkkaar kese la fan lañ jëm fan lañ jëm du nu dellu suñu boroom ba nu dee rek ñu yenu suuli ñibbisi nga de gaay nañ leen wàcce kaamil koo xam ne xamul woon kaamil daawul julli daawul dem jàkk ñu koy wàcceel alxuraan lan la ko alxuraan di jëriñ yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko mbokki jullit yi sunu daara jee ca marché jeudi tudd imaam ali ibnu abi taalib daara ji ñetti kër la dafa am jardin am élémentaire am daara boo xam ne xale yi fa la ñuy mokkale alxuraan benn ci kër yooyu dañ koy jaay borom kër gi woo ñu ne ñu ñu nag ñi fa nekk di fa jàngale ñëw leen ma jaay leen kër gi te ñun amuñu lu mu wax waaye yàlla am na ko jullit yi am nañ ko ñu defar ay carte soutien pour di ci ut ndimbal carte yi indi naa ko moo ngi fii ci biir jàkka ji am na carte 1000 francs am na carte 2000 képp koo xam ne julli si nga incha allah nga mun ñu cee jàppale wala nga xam koo xam ne mun nañu cee jàppale incha allah ñoo ngi lay tàllal loxo di la ñaan nga dugal ci sa ndimbal balaa kër googu ñu koy jaay xale yi di tasaaroo incha allah ndax xale yi ñu ngi leen fay defar ñu ngi fay jàng diine dafa jàng alquran dafa jàng sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam allahuma agfir lana ma qaddamna wa ma axarna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma anta alam bihi minna anta almuqaddimu wa anta almuaxir la ilaha illa ant ya haadi ihdina sirata almustaqim sirata alladina anamta alayhim من النبيين والصديقين والصهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله